الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجوى في سورة يوسف يمن في آية يوم فك أجرم نار tàmbalee ci aaya juróom fukk ak juróom ñett ginnaaw boo xamee ne suñu borom tabaraka wa taala tudd na jaar-jaar yi Yuusufa jaar digganteem ak bokkam yi ca teen bañ ko sànni woon ak na ko ca tukkikat ya génne bokk ya jaayaat leen ko ñoom itam ñu jaayi ko Misra ki nga xam ne moo doon azizu Misra jënd ko bàyyi ko ci biir këram bala xew digganteem ak soxnaam lépp xew dañu mujj ko tëj kaso digganteem ak ña mu nekkandooloon ca kaso ba te xibaar leen seen gént yi ñu géntoon gannaaw bi itam buur bi gënt ak gént ñu wax ko yuusufa mu firim leen gént ka ba na mu mujj génn ca kaso ba buur bi andi ko ci wetam boole ko ci ñuy doxal nguur gi yuusufa ne ko lañ ma féetale wàllu alal bi ndax man kat ku ko xam laa te ku wóor laa ku ko mën a sàmm li borom ne noonu laa dëgërale yuusufa ci kaw suuf jox ko ci cër yu rëy mu ne sama yërmande noonu laa koy joxe ku ma soob man yàlla te duma sànk payo képp koo xam ne da ngay mu ne ànd ak loolu ma ko defal ci àdduna yépp nag teewul la ma nar a fay àllaaxira nar ko koo faye ak di ko faye képp ku rafetal nee na fayu àllaaxira moo gën a baax te moo ëpp fuuf wala ajrul axirati xayrun lilladina amanu wa kaanu yattaqun foofu lañ taxawal mu tàmbali nag beneen phase ci xista bi te mooy nag digganteem ak bokkam yi nag dellusiwaat ndax diggante bi yëpp daggoon na bokk yi ñoom bañ ko sànnee ca teen ba ba jaay ko booba la seen mbir ak moom daggoon waaye ci ñu toll nag dafa commencé waat nag digganteem ak bokk yi di dellusiwaat rabbina wajaa ay ixwatu yuusufa ndax bi nga xamee ne dekkoor boobu am na ni mu ko waxe woon ci gént gi buur bi buur bi jël ci juróom-ñaari nag yu yooyu di lekk juróom-ñaari nag yu suur jël yi itam juróom-ñaari gubi dugub yu naat ak yeneen juróom-ñaari gubi dugub yu wow te dañ ko nett la Yuusufa mu firee ko ne dana am juróom-ñaari at yoo xam ne day taw gàncax gi di ñor mu naat lool suñ ko jógee nag dana am yeneen juróom-ñaari at yoo xam ne bekkoor lay doon dara du ñor mu ne woon nag juróom-ñaari at yooyu nga xam ne gàncax gi day bari bu ñu ko yàq nañ ca jël rek lañuy lekk la ca des ñu denc ba bu bekkoor bi ñëwee ñu mën a am lu ñu lekk moo tax ñoom noonu la ñu def ba bu bekkoor bi ñëwee réew moomu di Misra moom rek moo ci am lu ñuy dunde réew yi ci des moom nga xam ne amuñu woon ku mel ne Yuusufa mu wax leen lu war a def juróom-ñaari at ya dañ doon lekk lañ am rek lu mu bari bari ñuy lekk di jaay di yàq ndax jàpp ne déwén day tawaat ba bekkoor ba ñëwee nag amatuñu dara nag fekk day suñu woon dara ñuy ñëw nag misra di ko jënd si ci yuusufa bokkam yi rek ci lañ bokkoon muy fam dëkkoon ñu ngi dëkkoon fu ñuy wax kanaan yi saam la ba ñu déggee ne buuru misra moom day day jaay dugub am na lu ñu lekk bay jaay ñu ne nañ fa dem jëndi fa bokk yuusufa yooyu nag ñëw di jëndi moom la ne wajaa ay yuusuf bokk yuusufa yi nag ñëw fa daxaloo alayhi ñu dugg ci moom moo yore wàllu koom-koomu réew mi fa arafahum moom ba leen gisee rek xam na leen wa hum lahu munkiroon ñoom nag dañ koo fakk ñoom xamatuñ ko ndax dañ koy sànni xale bu ndaw la woon léegi nag mag la kilifa la ñu ngi toog nguur gi garde yeeg yépp wër ko moom moo leen xam waaye ñoom dañ koo fakk ndax toujours gone mooy mooy mooy mooy xam mag ndax mag ni moom daanaka duutu soppiku na ko gone ga bàyyiwoon rek ñaari noonu lay mel gone gi nag mooy soppiku moom bi ñu ñëwee kon ne ñoom it dañoo bëgg mu jaay leen aw ñam wala ma jahazahum ba mu leen waajalalee ñu defaral leen la ñu leen jaay takkal leen ko ci seeni sëf boobu nag li ñuy jaay da koy limité kenn nga mën a sëf ci gëleen bi nga yor rek loolu lay jaay waaye du la jaay lu ëpp loolu ndax it réew yi ñu koy jënd ci day bari moo tax daf koy limité mu ne wala ma jahazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ci seen wàccaay al jihaz mooy loo xam daal kii tukki da koy soxla muy bagaasam daal gannaaw bu mu leen seralee nag dalal leen seral leen jaay leen ñu defal leen seeni sëf yëpp ba ñuy bëgg a dem nag mu ne leen itoonii bi axin lakum beneen yoon bu ngeen di ñëw di si waat na ngeen ma andil seen mbokk fekk nag biir bi ñu fi nekkee mu di leen ganale waxtaan nag ñoom ñu nettali ko seen mbir seen baay ak seen mbokk mañ fa bàyyi ndax fukk lañu war a ñaar ñoom fukk yi ñoo ñëw kenn kañ fa bàyyi mooy ci bokkal yuusufa ndey kooku lañ fa bàyyi ndax seen bàyyi moo nëguwul mu dem ndax ba mu gisatul yuusufa kooku lay xoole yuusufa moo ko téye bi leen gis ba waajale ba ñuy dem nag mu ne leen beneen yoon bu ngeen di ñëw seen mbokk mu ngeen fa bàyyi na ngeen ma ko andil ittuuni ak axin lakum min abikum mbokk ma nga xam ne bàyyi ngeen mbokk bàyyi ngeen mbokk na ngeen ma ko andil ah xanaa lu ma leen ñaan war ngeen ma koo may ala taraw na xanaa gisu leen ne am ni oofil kay la man damay jaay njaay mu ma tëkk nattal naa leen njaay ni li ma leen di jaay mat na tëkk te wa ana xayrul munzilin te man maay koo xam ne may ngën ku ñuy wàcc fi moom di dalak moom maanaam gis ngeen teraanga ji ma leen defal ku ku ma neex a daloo la maanaam ku man gan laa dal gannaaw ñaar yooyu yëpp nag ñaari qualité yooyu yëpp mi ngi ci man mooy kuy jënd ci danaa la jaay ba ma tëkk du ma la rax te itam danaa la ganale ba sa xol sedd kon kay bu ma leen ñaanee dara ne leen andil leen ma seen mbokk moomu war ngeen ko andi ndax mu ànd ci ngan gi moom itam mu daal leen di xaw a tëkku nag ne leen fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen di ñëwaat te wu leen ko la kayla lakum kenn du leen ci jaay dara du ma leen jaay fala kayla lakum indi wala taqrabun te it bu ngeen ma jegee sax du ma leen dalal du ma leen dalal di leen ganale du ma leen jaay te dama leen di dàq xaalu ñu compte ko ne ko ah dana jafe de pour ñu mën koo indi waaye nag sanuraawidi al muraawada mooy jéem loo xam ne da koy sàkk sonn ci loolu comme nañu defoon yuusufa bañ koy jël ci baayam di ko yóbbu ci àll ba sanuwaa yi di jooju lañ waxoon naxanteeg baayam danañ ko sàmm danañ def nii danañ def naa ba baayam jox lañ moo tax ñu ne ah kooka de bunde ne itam sanuraawidu anhu abaahu dana nu ko jéem a sakku ci baayam dañ luñ mën a wax baayam daal ba mën noo gëm ba jox nu ko danañ ko def wa inna la faailuun ñoo ngi lay xamal ne yow de lii ngeen wax fas nañ ko yéene def seetlu ko bu baax danañ ko indi daal suñ kam kattan danañ jéem daal pour andi ko loolu lañ tàggatoo ak Yuusufa wa qaala Yuusufa daal di wax nag li sibyaani fii muy ñuy liggéey ci moom booyam yi nga xam ne ñoo koy sarteel marchandise meeg yooyu ne leen isalo def leen jëgaatahum seen marchandise min andi woon maanaam seen alal bi andi woon doon ko jëndati def leen ko fiiri xaalihim ci seen raxale yi maanaam solaale leen ko ci saako yi leen leen solal dugub bi solaale leen ci xaalis bi andi woon ndax loolu daf koy def pour bëgg ñu dellu ndax ñoom it ñu maandu lañ bu ñu demee gis ne xaalis bi mën naa am dañoo joom solaale ko ñoom mi doon jënd keesu suukar ci bitig ba gis ne bi nga kër gi nga gis keesu suukar gis téeméer bi ko doon jënde da nga delluwaat bi xanaa da nga fàtte téeméer bi da ma ko joxaale waat boo ma doo doo toog ne man am naa suukar am naa téeméer déedéet da koy delloo moo tax mu bëgg ñu dellu si nag moo tax mu ne leen njëg gi ñu andi woon solaale leen ko ci saako yi ñu yóbbaale waat ijalo bidaatu fi rihaalihim laallahum yaarifuunaha ndax ñu xam ko suñu delloo xam ne kat ñoom alal bi ñu andi woon doon ko jënde daf leen a toppat maanaam ñu jàpp ne daal dañ ko jaawale ba mu toppat leen moo tax mu ne idan xalabu suñu delloo ila ahlihim lu mu ci la mu ne laallahum yarjiun ndax ñu del waaw dafa bëgg ñu del ndax mën naa am ñu ne ah nun nam jëndi keneen gannaaw kee daal mën na nuy laaj ne ngeen andi seen mbokk mi te duñ ko andi ko du yomb mën nañ fa bañ a demati jëndi keneen waaye bu bëgg leen motivé ba fokk ñu del si mu ne leen na ngeen dugalaale li ñu andi woon doon ko jëndee xaalis bi ñu andi woon solaal leen ko ci xaalis loolu la wax moom Yuusufa nga xam ne ñoo koy solal ku ñuy jaay ñoo lay solal idan xalaboo ila ahlihim ndax suñu delloo ca seen kër ñu gis alal jooju laallahum yarji'un ngir ñu del mu ne falamma raja'u ila abihim ba ñu delloo nag ca seen fukki doom yooyu ñu ñibbi qaalu ya abana ñu ne yow sunu bàyyi muni'a alkaylu ah, jaay nañ ñu ji yoon day waaye nee nañ ñu beneen yoon tere nañ ñu dum jaay bunia tere nañ nu min naa ci nun alkaylu natt jaay lu nu jaay li fekk andiwul suñ bokk ni kon nag fa arsil maana axaana fa arsil yabalal maana mu ànd ak nun axaana suñ mbokk lii ñu fi bàyyi woon su ko defee naktal su ko defee suñ demee ñu nattal lu jaay nu wa inna lahu la xaafizun te nun nag noo ngi lay waatal ne danañ ko sàmm danañ ko aar ñu seen bàyyi daal yabal ko ndax buñ demee ñu mën noo jaay te nag li nga ragal du ci am danañ ko sàmm bu baax a baax a baax a baax qaal seen bàyyi ne leen yaqub hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala axihi min qablu hal amanukum alayhi ndax danaa leen ci wóolu illa kama amintukum ala axihi lu dul na ma ca mbokkam ma min qablu bu jëkk magam ja yuusufa na ma leen te wóoloo woon ngeen dem ne sànq na ci lu lekk na ko kóolute gu mel noonu rek bu ma leen koy joxit kóolute bu mel noonu dong rek laa leen ciy wóoluwaat maanaam kóolute ñaaw njort moom mën a tubale ne daal sama njort daal fokk mu ñaaw ci yéen ndax li nga xam ne moo daloon magamte di Yuusuf ah su ma leen ko joxaay itam la ma doon ragal rek moom laa ci ragale waaye nag mu daal ne fallaahu xayrul xaafisal yàlla nag mooy ngeen ci koy sàmm kon daal caaraangeeg yàlla daal lay wóolu jox leen ko wa huwa arhamu rahimin yàlla day mooy ki gën a mën a yërëm képp ci yërëm borom bi tabaraka wa taala moo la ëpp yërmande ndax moo la jox ak yërmande wala ma fataxoo mataahum mu ne ba ñu ubbee nag seen fekk seen i saako nag yenu yañu jënde foofa wajadoo fekk nañu bidaatahum seen marchandise mañ yóbbu woon mañ doon jënde ruddat ilayhim delloo nañu leen ko ba ñu ubbee rek saaku fekk saaku yi rek dañoo gis ne xaalis ba ñu yóbbu woon dañ ko cee solaale midi qaalu yaa abana ñu ne waaw yow sunu bàyyi maa nabxi nun lu nuy wutati nun kat sunu yoon wi doy na waar ndax haadihi bidaatuna sunu alal jëli yóbbu woon mi ngi nii ruddat ilayna dañ ñu koo delloo dañ ñu koo delloo kon nag amunu benn pexe lu mooy delloo rek dellu yóbbuwaat maa nabxi amuñu dara lu nuy sàkkooti lu may yóbbu ko ndax lii alali jaamur la sa ñu ko téye bu ñu demee wana niiru ahlana ngir ñu man faa amaale lu ñu dundalee suñu njaboot maanaam ñu mën noo jaayaat kon daal yoon wi ñaari motif la il faut nu dellu delloo alal ji nga xam ne moomuñu ko waaye il faut ñu delluwaat ngir jëndaatul dund ngir mën a dundal waa dëkk bi wa naxfatu axaana dananu sàmm sunu mbokk mii soonu booleeg moom ndax su demul kenn duñu jàng te soonu booleeg moom wan na zaadu danañu dolliku xayla ba'irin njaayum geneen gëléem maanaam ñun fukk lañ woon kenn ku ne yor gëléem mu jaay nu fukki sëti gëléem buñ ñu balee mbokk mii lañ nekk fukk ak danañ am bénéfice geneen gëléem gu ci yokku danañ am fukki sët ak benn loolu bénéfice la moo tax ñu ne wan na zaadu danañu dolliku xayla ba'irin Eh, nattu tëfuk jëneen jëleen saalika kaylun yasiir mu ne loolu day natt bu jàppandi la ca buur ba kookee muy jaay moom loolu yomb na ko lool maanaam mu yokkal nu buñ yóbbaalee suñ mbokk mii moom itam mu jaay ko tëfal ko gëleemam loolu lu ko yomb la te boobaa day gën a baax ci nu qaala seen bàyyi ne leen lan ursilahu maakum duma ko yebal muy ànd ak yéen hatta tu'tuuni mawfiqan min allah li feeg joxu leen ma kóllëre bu bàyyi ko ci suñu borom maanaam ngeen jox ma engagement bu wér boo xam ne da ngeen koy waat da ngeen koy waat seen digganteeg yàlla moo tax mu ne mawfiqan min allah ngeen may waatal ci yàlla daal ne la ta tunna nii bihi la ta tunna nii bihi da ngeen da ngeen ma ko indil illa an yuxaata bikum lu dul nga xam ne dañ leen a ëpp doole wër leen ma nar leen a rey ba ngeen jeex nga xam ne loolu dong daal mooy tee mu dellu si maanaam bu dellu siwul daal kenn ci yéen du dellu si waaw maanaam la ko fay bàyyi daal war na leen faa bàyyi yéen yëpp waaw lu boobu ngant daal laay nangu suñ ne maa daal ñoom yëpp bokk nañ leen rey bañ jeex wala ñoom ñëpp jàpp nañ leen fa kaso tëj leen kon moom danaa nangu ngant bi waaye ngeen ñibbi si naan ma maga fa kooku moom du ma ko nangu moo tax mu ne illa an yuxaata ko mu ne falam ma aatawhu mawsiqahum nag bañ ko joxee nag seen kóolute seen engagement ñu waatal ko ci yàlla ne ko daal danañ ko sàmm te dana dellu si insha allah qaal mu ne allahu ala ma naqul wakil maanaam lii nu waxante suñu borom tabaraka wa moo koy saytu maanaam yàlla moo ciy seede waaw lii nu waxante lii ma waxanteeg yéen kóol renteeg yéen ngeen ne ma da ngeen ko sàmm ba delloo si ko lu dul boog dañ leen ëpp doole ëpp doole goo xam ne yéen kenn du mucc loolu nu ne day yàlla moo ci seede wallahu ala ma naqulu wakil mu daal leen di bàyyi moom nag waaye mu daal leen di conseil wa qaala mu daal ne yaa bani yi yéen sama doom yi comme fukki doom ak benn lañ ñoom ñëpp bokk bàyyi dañoo taaru lool egguñ ci Yuusufa ci taar waaye ñu taaru lañu mu ne leen su ngeen demee laa tadxuluu min baabin waaxid bu leen duggandoo ci benn bunt nit ñi gis leen naan xool leen mbooloo mi kenn leen jur mbooloo mi lépp yoo bokk bari waaw nit ñi dañoo mën a wax waaw léegi wax yi nit ñi moom yàggee sa ko ragal ak seen i waaw surtout al bët yi wata mu ne laa tadxuluu min baabin waaxid bu leen duggandoo ci benn bunt da ngeen tasaaroo ñii jaari nii ñii jaari nii ñu defee ne àndu leen su ko defee nit ñi defee ne àndu leen waaye su ngeen àndandoo benn délégation ñëpp ci xool leen leen yaay ñii ñëpp bokk bàyyi waaw moo tax mu ne laa tadxuloo min baabin waaxid wadxuloo min abwaabin mutafarriqa na ngeen duggee ci ay bunt yu taqalikoo yu bokkut waaw ci jóge nii ci jóge ne la nag wa ankum min allahi min shay lii ma leen wax rek te ku wala dama leen a mënal fa yàlla dara wala lu leen nar a yàlla lu mu leen nar a teg tekki dama caa man dara wa maa ugni duma jariñ ankum ci minallahi ci yàlla min say in ci dara bu ngeen defee ne nag wax dafa mën a fanq dogal bu yàlla inil xukmu illa lillah atte moom yàlla rek ko yor alayhi tawakkaltu ci moom laa wakkiir lu itam maanaam lii may wax dama ko wax rek ngir sabablu ngir daw bët ak wax waaye nag tekkiwul ne day gàllaaj bu mën a aare la ma sukkandikoo mooy yàlla ci laa wakkiirlu pour mu aar leen wa alayhi fal yatawakkalil mutawakkiluun yàlla day kuy wakkiirlu ci moom ngay wàkkirlu waaye kenn du lu ci ay sabab naan duggeel néeg génneel néeg dajeelal ceeg yooyu déedéet loolu du tax a mucc moo tax borom bi ma daxalu min xaytu amarahum abuhum ma kaana yugni anhum min allahi min shay illa xaajatan fi nafsi yaquba qadaha mu ne walam ma daxalu ba ñu duggee nag ba ñu ñu def ni leen seen bàyyi min xaytu amarahum abuhum nee na duggee nañ na leen seen bàyyi waxoon bokkuñu buntu buñ duggee kii jaar nii kii jaar nii kii jaar nii ba nga xam ne nit ñi duñu nàmb dañoo ànd duñ nàmb ne itam benn famille la waaye suñu borom nee na maa kaana yuxni anhum min allahi min shay nee na loolu jëriñu leen dara ci yàlla ci dogalub yàlla nee na loolu ñu def jëriñu ci dara liñ def daal mooy am na lu nekkoon ci seen bàyyi daal bëgg-bëggam daal fajal nañ ko ko illa xaajatan fi nafsi yaquba aajalo bu nekkoon ci bakkanub yaquba mu ko doon xalaat xadaaha fajal nañ ko aajo aajo bi daal faju na waaye loolu dong la aajoom daal faju na li ñu doon tiddal ne leen bu ngeen demee bu leen duggandoo benn place ah doom yi defal nañ ko ko aajoom faju na waaye nag texul mu mën a falk dara ne suñ borom ne wa innahu moom yaqub la zu ilmin borom xam-xam la waaye li ma allamnaahu ñeel la ma ko xamal ñu ni am am xam-xam lu ma ko xamalul mënu koo xam waaw waaw li ma ko xamal loolu lay xam walakin aksara annas waaye dañ li ëpp ci nit ñi nag nee na laa yaalamuun xamuñu moo tax dañuy sukkandikoo yu baree baree bari ay tegtal yu bari jàpp ne dem ba wóolu loola defe na loola mooy maye defe na boo ca ratee dara rek musiba dal la defe ne boo ko defee dana baax kon bi parce que bu baax kon xam ne tegtal yu baree baree bari yu nit ñi def yoo xam ne dañ koy dalale seenum xel rek waaye taxul mu mën a jariñ dara ku ca sukkandiku sax day daal di bëgg a nekk bokkaale Yaqooba itam sax boo gisee mu sañ ko moom moom ab yonent la suñu borom bi ne innahu la soo ilmin bi ma allam naa kon loolu suñu borom tabaraka wa taala moo ko ko xamal waaye nag tekkiwul ne loola da koo mën a dara dogal gi moom su borom bi tabaraka wa taala lay jóge waaye kenn sëñu ko di ko fent nag boo leen nangam leen nangam di wut ay que moom ab yonent la wax dañ ko ko waxi am naa nitu ordinaire rek nag moom du joxe yooyu tegtal man bu ngeen demee ngeen jaaree fii na ngeen jaaree fii joxe loolu boobu xam-xam bu mu ko jëlee fu mu ko bëgg a jëlee loola bu boobaa kon du doon lu kenn war a topp mu ne wala ma daxaloo ala yusufa nag kon noonu lañ jógee si waat seen yoonu ñaareel woow nag si yusufa aawaa ilayhi axaa mu ne aawaa fat na ilayhi jëmee ci moom axaafu mbokkam ndax ba ñu ñëwee ba tëdd jot far ñaar ñu ne dalee na boole am néeg comme fukk la benn nag dana def kenn mbokkam moomu moo ci def ñaar ñu ne da leen boole néeg ba mu des kenn mu leen kenn kii moom comme amul kum àndal man maa koy fanaanoo man man maa moo tax mu ne aawaa ilayhi axaa ba ñu demee bu wéet nag mu feeño ko nag xaala mu ne ko inni axuuka inni ana axuuka man maay sa mbokk ñu bokk li yow ndey ak baay maay yuusufa falaa tabta is bul naqarlu bul tiislu bi ma kaanoo yaamaluun la ñu waaw maanaam bu mu daal di tax nag sa xol daal di tàng ci sa mbokk yi nga daal leen di mere ndax ko lañ ma defoon déedéet melal ni nga meroon rek bul bul wane benn comportement boo xam ne da ngay daal di mer wala nga bëgg leen a wala dara tax mu ne ko la ñu jëfoon fàtte ko na ko xam ko waaye nag bu ko feeñal dal daal di nekk ak moom falamma jahazahum bi jahazihim mu ne ba mu leen waajalatee nag ñu takkal leen seen saako yi ñu leen jaay ba pare nag mu wax surga yi booyam yi nga xam ne ñoo koy solal saako yi ne leen àndaari buur bi àndaar bi nga xam ne moom lay natte pot bi muy natte ku muy jaay potu wurus la boo xam ne moom ci la daan naan ba mu def ko pot boo xam ne ci lay nattal wurus bi muy jaay mu ne leen na ngeen ko solaale ci saako kii sama mbokk mii xamu nit ñi xamuñ ne mbokk ma waaye mu ne leen daal su ngeen dee sow daal gëleemu kii na ngeen tay tay lu solaale ci poto buur bi pot bi buur bi natte moo tax mu ne jaxala siqaayata siqaaya mooy lu ñuy naane waaye nag léegi pot la bu ñuy natte def nañ ko fii raxli aqiihi ci bagaasu mbokkam moomu ñu solaal leen ñu ko def bañ départ di dem nag mbokk ànd ak moom di dem mbokk mi moo tax mu solaale saako bi ab saakoom mu solaale ci pot bi ñuy natte bañ demee ba ca kanam su ma azzana mu azzinun ab yéene kat yéene ne ayyatuha al ayir yéen jëgg ji al ayir mooy ay gëléem yu sëf ab convoi lay nekk dan karawaan karawaan la al xaafila innakum innakum la saariquun yéen ay sàcc ngeen Yuusufa yabal ay gaayam ñu daw leen ca gannaaw dëkk ba daf leen ne éey eh, yéen ñuy dem ñu geesu ñu ne ay sàcc ngeen innakum la saariquun xam nga loolu day yéemu wëlbati xaalu wa aqbalu alayhim ñu daal di wëlbatiku jàkkaarloo ak ñoom ne maasaa tafsiluun lu ngeen di seet ba nuy ba nuy jëlub sàcc xaalu surga yuusufa yooyu ne leen nafqidu dañuy seet suwaa al malik buur bi code bi buur bi natte moo réer waaw te yéen ko sàcc wali man jaa bihi ñu ne buur bi nag dig na képp koo xam ne xeeñal nga ko andi ko lu ba baxiirin dana la tëfal dana la may safub jëleen dana la ko neexale waaw maanaam jibril en pour bëgg ñu sawar daal maanaam ku ko sàccoo leen nga génne ko yooyu moo tax ñu ne leen buur bi nee na ku ko feeñal moom dana la may sëfub gëléem ki koy wax ne wa ana bihi saim man maa ko garanté ci buur bi yabal muy wax loolu ne leen bi ne ku feeñal àndaar ji jox la gëléem bu sëf te man maa garante loolu ma dana la ko jox wa ana bihi zaim maanaam kafil maa garanté loolu fokk da nga ci jox xaalu bokk yi fa yooyu ne ko tallaahi noo ngi wàcc yàlla ne laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa li nufsida fil ard xam ngeen ne nun du ñuy sàcc de nun dikkuñu ngir di yàq ci kaw suuf du ñuy bandi dikkuñu ngir di yàq ci kaw suuf wa maa kunna saariqiin nun nekkuñu ay sàcc nit du baax lañ ñoo xam ne ñun duñ sàcc waaw gaa yi Yuusufa yooyu ne leen xaalu ñu ne leen fa maa jasaauhu in kuntum kaadibin Ah, waaw su càcc gi feeñee ci yéen nag moo war a doon fayu ci sàcc fama jasaa'uhu lan mooy ak fayam in kuntum kaazibin su ngeen fene ndax ay sàcc waaw bu nu gisitee gis ko ci jàpp ne moo war a doon peen bi ñu war a fekk sàcc bi xaaloo ñu ne ko jasaa'uhu ci seeni luwaay réew nag lañ ko wax ne ko jasaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jasaa'uhu liy doon peenu ci sàcc daal ñoom ca seen réew fa ñu muy fa yàqoo ba ne foofa luwaa ba fay dox mooy ko sàcc bu ñu la jàppee yow yow la boroom sàcc ga di fayu ko yow ab jaam ngay doon sàcc bu jàpp rek jaam lay doon waaw boroom bi kim sàcce ko moom léegi waaw loo tax ñu ne ko man wajida fii rahlihi fa huwa jazaa'u moo tax parce bu ndax bu doon ci luwaay yuusufa fi mu nekk moom am réew réewam foofa sàcc kenn du ko fa def ak jaam dañuy nangu lam sàcc rek dóor ko mu dem moo tax na ñu proposé leen laaj leen ñoom ne leen waaw yéen bu feeñee ci yéen lu ngeen jàpp ne moo war a doon sanction bu ñu ko war a def la ñoom kon ñoom lañ bëgg ñu waxal ko seen bopp bëgg nañ ko atte ci seen luwaa réew loolu itam ay pexe la ndax xam nañ ne dinaaw yaa jàpp sàcc bi kay yow waroo laaj sàcc bi mbokki sàcc lu ñu war a def sàcc yow mi jàpp sàcc bi kay yaa war a xam loo ko war a de waaye xam nañu ñoom li ñu ko war a fu suñu ko defee ba tey li ñu bëgg du am ndax kon boobaa dañ koy jóor rek ba ko mu dem te Yuusuf bëggul mu dem ko bëgg a téye dafa bëgg a téye mbokkam li ko bëgg a téye moo tax ñu ne leen waaw yéen buñ ko jàppee lan moo war a doon fay bi ñu ne ah day ab sàcc ñun fuñ ko jàppee moom jaam lay doon kam sàcc daal da koy defub jaam man wujida fii rahlihi fa huwa jazaa'u kazalika najzi az-zalimin ñu ne nun de noonu la ñuy faye tooñkat yi ma ne loolu mooy sunu luwaa réew noonu la ñuy attee ab sàcc nun waaw fa Yaquba loolu moo doon sari am moom ah léegi rek ñu commencé di wisit ñu ne aywa kon teg ci leen bagage yëpp parce que nag Yuusufa mooy ne leen ci ngeen dee bu leen njëkkee euh, sama safu mbokk mii nga xam ne ci ngeen ko ndax kon loolu dañuy naan ne bootul yéen ko ci def da ngeen di réerantal ci ñeneen yi fa bada bi aqiyatihim ñu tàmbalee ci sëfi mbokk yi ci def di tekki saako buy tekki julli seet lu nekk ci takkat ba saako yëpp mat bañ egsi nag ci saako yi mbokkum mi moo mu ne qabla wi'aa'i axiihi njëkk saako mbokka bi summa staxrajahaa topp ñu génne ko nag génne àndaar ja min wi'aa'i axiihi ci saako mbokkam yi la fa lañ fa la feeñu nag ah borom moo tax borom bi ne kazaalika kidnaa li Yuusufa naka noonu laa fexee la laa tëla la pexe Yuusufa waaw pexe pexe muy jëriñ te du lor loolu moom lu baax la sa borom bi day pexe innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan yàlla nee na akiidu kaydan damay pexe damay tërali pexe pexe nii yàlla moo ko tëralal Yuusufa moo ko ko wax yi bu dul woon loolu moo tax borom bi ne maa kaana li yaquda aqaahu fii diinil malik mënul woon a am pexe moomu jàppe mbokkam ni ci loi buur bi mu nekk buur bi mu nekkal ay lowaam mayu ko woon mu mën a téye mbokkam ni ndax ñooñu seeni loi du ñu jàpp ab sàcc jàmm bu jàppee sàcc dañ koy duma mais dañ koy ba mu dem moo tax borom bi ne maakaani nekkul woon li yaxusa axaahu ngir mu mën a jàpp mbokkam mu mën koo téye fii diinil malik ci diine mbokkam buur boobu diine ji li dul mooy lowaaya muy xaanun ba fay dox illa an yasha allah lu dul nag mu soob yàlla yàlla la soob mu may ko pexe mu mën a jaar نرفع درجة